na si ñu ngi lay sargal di la ziar di la dalal jàmm ci émission bi di wareef parce que sa xam-xam màcc na ci xelu nit la cay ne moo tax ñu nga toog fi ñu ngi lay nuyu nuyul askan wi. Euh, maa ngi euh, la Ndiaye Lo Ndiaye. ndeysaan ci wax yu rafet yi xalaat yu rafet yi. jërëjëf maa ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu euh, madame Niass euh, gis nga depuis pratiquement un mois ñu ngi ci thème violence conjugale te guléet ñu def ci euh, thème un mois waaye li ñu gis sax ci nit ñi mooy dafa mel ni nit ñi doyaluñu ci thème bi li ma lay jëkk laaj balaa ñu ñëw ci xóotal lu tax pour yow nit ñi maanaam soxna yi doyaluñu ci thème violence conjugale. Euh, Adja Dégg na xam nga nit ñi bu ñu manifester dara. mooy dafa nekk lu leen ñor. dëgg te sëy dafa nekk suñu centre vie. mooy centre lépp. war a intéresser ñëpp. Euh, jigéenu Sénégal rax ci dolli. suñu réew ji ñun. Mhm. Ah, sëy soxal nañu parce que ko fonk. la te ñu bari luñ ciy ut bari luñ ciy xaar. Mhm. te nag waaye nag wax dëgg yàlla bilan bi moom doy na waar. waaw je loolu moo gën a intéressé nit ñi. Mhm. ci thème bi. tëgg la violence conjugale euh, dañu dem euh, madame Niass ba banaliser ko wax nañu suñu waxee violence rek baaxul fenn rawatina ci biir néeg ñu gis ne jamono ji fii ñu toll violence yi bëri na violence nag bi ñu ko toppee ñun ci suñu xam-xam bu gàtt dem nañu ko xaaj ko ñett wala ñeent. dem nañ ci violence physique bi nga xam ne moom la nit ñi gën a tàmm di gis damm loxo tëj bët def ay fana safaan ak keroog ka nga xam ne. dafa mbëkk dafa weq ngaamu jaba ji ba mu damm yooyu lañu tàmm di gis waaye am na beneen violence boo xam ne duñ ko gis te moo gën a metti mooy violence bi nga xam ne ay gàkk-gàkk lay def ci xelu nit ki mu am tamit beneen violence boo xam ne gis nañ ko mooy violence économique ñuy topp topp violence yéen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu en tant que psychologue lan nga ñu ci mën a yokkal euh, comme li nga wax rek Adja Degen mm. euh, violence physique mm. mooy li ñu ëpp lu ñuy gis te wax dëgg yàlla metti na mhm. euh, bëri na gàkk-gàkk yu muy def nit mhm. waaye bi ci gën a metti yaakaar naa mhm. mooy violence psychologique boo xam ne kenn du ko gis dëgg la dañuy gis nit ki muy dox rek ñu defe ne ma ngay dox fekk nit ki dafay déstructuré wu maanaam nga doon tegale di di tàllal yoon dem ba ci yàgg yoon wi benn brique jaar gauche benn brique jaar fekk nit ki tasaaroo na nekkatul nit mënatul sax euh, dox dox bu jub. Mhm. boobu déstructuration ndax mun na ma ko laa ko mën a expliquer ci olof ba nit ñi mën koo gën a comprendre. Mhm. moo gën a metti ci nit. Mhm. dina defloo nit ay jëf yoo xam ne dañ naan waaw kii lu ko xiir. kii lu ko dal kii lu ko lii kii lu ko laa kii di xàmmeetuma ko moo gën a metti te li muy yàq ci société bi moo gën a ba dina dem ba toucher dëkkandoo dina toucher doom dina toucher sa nawle bi nga séqal. dina toucher fu law. Euh, tasaaroo daal. defe naa boobu moo gën a moo gën a am. Euh, bi ñu dul gis bi ñu dul gis. te boobu euh, dafa mel ni bi ñu dul gis dégâts yi moo gën a bëri. wuu yi moo gën a bëri. dëgg la dégâts yi ñoo gën a bëri. dëgg la ci ki koy dund. Mhm. ak ñi mu ko bokkal. yan xeetu dégâts nga ma ci mën a limal. xeetu dégâts yi ma la si mën a limal. Mhm. mooy à part après déstructuration bi ma la wax. Mhm. Adja Degene bu ñu waxee ci dundin rek. xam nga sunu kër papa ak kër yaay. lekk am na fa naan am na fa. dëgg la muy ci góor muy ci jigéen. dëgg la bu dee togg bu neex. Mhm. ay sœur say jigéen mën nañ ko. dëgg la bu dee lallal ba mu rafet ay jigéen mën nañ ko. na bu dee euh, xeetu cuuraay ñëpp mën nañ ko. Mhm. mais dafa am loo xam ne. Mhm. jabar moo ko mën. jëkkër itam dafa am loo xam ne si say jabar kër yaayam ak kër papaam am na fa. am na loo xam ne yow ko góor kër yaa ko mën. Euh, Adja Degen dëkk dafa metti euh, dëkk waxuma dëkk dëkk àddina mhm. dafa metti mhm. kon biir kër rek mhm. mooy yaakaar naa ne ruq bi nga xam ne yàlla daf ñu ko may pour defalee ñu ko nga war a mën a dugg sa biir kër war a mën a ñëw am koo xam ne nga xam ne kii de bu ma demee ca moom lépp lu ma kii woon dana wàcc moom war a dëfal mën naa ko mën a wax ak moom ouvertement mu dëfal ma nen ne ma te tette ma recharger samay batterie man it ko noonu donc euh, bu loolu amul. ah Adja dëggan dina metti te conséquence yi muy jur mooy nit ki doot day perdre. day réer. dootul xam fu muy kii te Sénégal dañuy waxtaan mën naa joxe rek benn conséquence boo xam ne. dafa am solo ci ñun. suñu dundin maanaam mooy ni dina wax ne damaa umu. sama wërsëg dafa tëju dëgg la. mais Adja Degen wërsëg bu tëju. Mhm. umu loo jub jublu nga ne man def fi mu ne dafa mel dafa am lu ma def. Mhm. xam nga fu muy trouver source am. Mhm. ci sëy bu naqari. dëgg la sëy bu bon si jigéen muy si góor. dëgg la ci biir kër. dëgg la donc conséquence boobu tam conséquence bu am importance. dëgg dëgg la parce que nit ki boo toogee bay yaakaar ne yow amatoo wërsëg. mënatoo def lu antu. mais imaginez conséquence boobu lu muy def ci yow. la muy def sa jabar la muy def sa njaboot dëgg la. dëgg la loolu dara ko mënu koo garaaw kon kon su ma la déggee soxna yaay Fatou. Euh, Alaaji kër mooy cumukaay. xam nga dafa ñëw ci démb. Ah, parce que kër mooy cumukaay. ku ne ku ne invité nañu waaye am na baat bu mu wax de man. Hmm. ku fi toog mosoo koo wax te man booba ma saf. ah parce que dafa mel ni fan si club am nga dama moom kay dama rek ma ñëw waaw dama dama jox naa la parce que dama la gis nga bëgg dégg xaw ma lan nga indi waaye bëgg loo na baat bu ma gën a intéressé hmm. bu wax hmm. liñ leen di wooye mooy wan tur yow nga ni mooy lan. ban ci ci tubaab moom. psychologue métier si psychologue. ah psychologue. bala ngaa mën a wax dangay ngay boo yàbbee mam njariñ hmm? waa Rizé ngay dafa am benn baat bu mu wax bu ma intéressé. Hmm. damaa umu. Hmm. ba jabar jigu ma. dëgg la. damaa umu. da ngaa porte yu ubbi woo ko. foo jaat nekk ci biti doo rentré. jërëjëf. yàlla sunu borom day sàkk. Hmm. ba pare ni la sàkkatal. dëggal dëgg la looy sàkkat njaboot gi. Hmm. ki nga fi ne seen xol tàppe. Hmm. borom kër bu génn këram agréé. soxna sa des fa di muuñ. yàlla jox la caabi. foo gëdd wubbil. borom kër bu wër ba ngoon jot amul dépasse bu mu yóbbu këram yaa quelque chose. sekkatul yàlla ko ni sàkkatal li ma la jox te wek ko dëgg la da nga suturaalul jigéen tey bàyyi allah ji dama ñàkk suturaal jigéen jigéen ju ñàkk gaa jigéen ju am gaaf gu bon amul dëgg la da ngaa yor kaaf mm. te moo loo ca dugal waay waay waay allah ji yàgg fi te wér amul yàgg fi te wér jongo may jigéen bu xool ba tooy mm. la ko tooyal du mbëkk du pourpañ du añ ndeysaan du ñetti dépasse yi ma lay limal te ordonnance am ci yoon hôpital ubbi wëtteen toog jërëjëf nga xëy. nga xëy. mu ne leen nijaay. jëru ngay xëy. dëgg la. sang bi yaa ngi xëyee. wallaay wallaay waaw waaw demal ak jàmm te indi jàmm. foo jublu yàlla na fa yiw yàlla jublu. yàlla day ubbi porte ya. dëgg la. ni la maa def mu dagan. dëgg la. yebal imam ci jàkka. dëgg la ñu xutba ma yor sama loxo. dëgg la. sëy dagan na. dëgg la xol yi tàppe na. dëgg la am na lu judd ci biir. dëgg la ñu di ko wooyee. takk ndeer. Mm. dégg nga ñu mag njëkk ñu mm. daaw ñu wax doom. Mm. sa takk ndeer ba. aysan munu ànd ak moom. Mm. su borom faatoo takk njër dootu am. dëgg la war maa leen di yéen ñaar. Mm. wëlis la. Mm. ku ne jël na caabi. biñ ko ubbi nag marché HLM am na ko war. dëgg la soo leen ko ubbee marché HLM am na ko war. <laughs> alaaji alaaji philosophe. dafa waxtu ñu la sëy boo ma sa gis ñu xar gura ga. benn doomu gura la ma ngi daan def dañ koo bàyyi. dañuy jël benn doomu gura bu mag. jox ca baay bi. ni ko soo demee. xar ko ci digg ba. jox kenn ki. jox séet bi benn. Mm. jox bii seet benn ku mm. góor ki. Mm. ñu denc. ngeen denc. ñu ne ko luñ ci jublu ñu ne déedéet. du léegi. ndax koo fa muy jaar mën naa teggi. ku góor denc ku jigéen ki denc ba ñoom un nga toog ab diir. ngeen toog nag bernde. ba yàgg mun daaw sang bi. ana lu bokkoon daaw. mu ni mi ngi mu ne ko génneel mu génn. muy ŋaan ŋàdd wa. ana ko jigéen ki muy ŋàdd wa. benn amu ci. Mm. lu des ak lu yóbbu. Mm. war amul xol yaa ànd. fàtte nañu loola. Mm. ab denc nag boo ko fàttee. am na da ko remplacer muy xol bu neex. alhamdulilah kon. ma ñëw. mokk poj warul jigéen rek. ku yend ci waañ baa ku yend ci bureau ba ngoon jot. nga nekkal ko bëccëg bi fas laa yéen nekkal guddi ak coono guddi ba ak bëccëg ba mboole ko. nelaw mën na ko këf. ndax yaram waayu nagam. yaram nag bu nagamee. baaraam yu sell. te jot. te nooy. ñoo koy dogati. ci war na ko góor. war na ko góor alaaji. neexal ko loo koy neexale dëgg la soxla si sonn nga de. Mm. mu ne waaw waaw. Mm. waaye yaa ko jaral. wallaay wallaay ndeysaan. sëy. Mm. ñett koy indi tax bànneex am. du dépasse bu mat. du sañse du lal bu nooy. dëgg la dama 3 mètres 50. Hmm, ca la coow li bëri. la coow li bëri. dëgg la jigéen bànneex. dëgg la lan 1 mètre 50 la woon te kenn du yaa ngi may daaneel <laughs> xool yaa kon mu mel ni kon soxna Yaye Fat lii la mais lii rapidement comme cubukaay bi nga wax ne nekk léegi foofu mooy fossé. néeg bi foofu moo fossé. kenn amatul repère kenn dellootul fa nga jóge woon pour defaru. parce que déstructuration bi nga wax c'est très important indi nga mot bu am solo. léegi dafa am lenn loo xam ne bëgg naa ko ñu junj ko ci xale yi. parce que man toujours dama yërëm xale yi démb dama ne allah ji ma ne ko gis nga liir amal sa lii rek teg ko ci berceau ci lal foo ko mën a teg nga joteeg papaam baat yooyu muy dégg muy jëm ci kaw rek da ngay gis xale bi commencé wee wee wee wee na nag muy màgg 6 ans di leen gis 10 ans mu leen gis ngeen di waxante lu ñaaw di tongoo kii tey tëdd bii ci nekk kii tëdd bee nekk nga naa dama wax sa papa mu jox ma dépense bi dama wax sa papa lii ma su la waxee yaay lii nga ne ko dema donc environnement boobu xale bi di bañe di bañe di bañe ba xëy suba màgg ci violence conjugale loolu lan nga ñu ci indi Adja Degene fi nga laal xam nga sànq da nga koo wax taane mm-hmm. mm-hmm. fekk sax teewuma mm-hmm. euh, xale yi dañu am importance torop torop torop ci société dëgg la te ñun aussi nga xam ne ñooy parents yi ñu am rôle bu mag pour ak responsabilité bu mag fi suñu doom ñun nag suñu société pour gàttal da ngay gis sëy yoo xam dañuy jël doom yi def leen arbitre te doom yi waruñu nekk arbitre sëy dëgg doom yi spectateur la ñu war a doon parce que dañuy jàng dëgg la papa ak yaay dañ leen war a woon model mhm. ñoom loolu rek mooy seen rôle bi ci sëy bi clôture nga waaw toog naan demal wax sa yaay mhm. sama sa papa mu jox ma nàngam mhm. wala dama wax sa yaay mu jox ma nàngam xale bi lépp comprendre na ko bi ci liir bi gën a tuuti lu xew ci kër gi xam na ko waxatumaag nag kii màgg di màgg di dem jërëjëf yaa ngi dégg bu baax ajaa dégg euh, sëy